waaw man mm, dama bokkoon ci benn parti bu tudd parti démocratique sénégalais wuti juuma président Macky Sall président je le dis tout de suite ñëpp yàgg naa ko wax te ku ma yàgg déglu war na ko xam président Macky Sall ñëw wut si ma woo ma ma toog ak moom benn yoon toog ak moom ñaari yoon ñetteelu yoon bi mu ne ma indil sa askan ma wax ak ñoom ñu indil leen palais ma toog ci kanamu askan ma ne ko président yow yaa ma woolu yaa ma wër ba woo ma ma bëgg ci sama kanam askan nga wax loo gis ci man ba may wër billaahi wallaahi wal kitaabi mu ne waaw maa la wër maa la soxla ndax jàmbaar nga ci lii mën nga politique bëgg nga sa askan dégg naa sax doo denc loo yor nit ñee la ko te xëy na dégg naa sax tabaxoo kër mais ma bëgg ku mel noonu loolu mooy politique nit da ngay nekkal askan bi moo tax ma soxla la sama biir man mouvement laa waroon créer bu tudd yoon wi ba commencé defar samay t-shirt sama Lacoste bu ko mu ne ma duma ci bàyyi dafa bëgg ma bokk biir parti waaw président boobu woo ma ba nekkatul candidat ma koy félicité ci disposition boobu mu jël mu calmer Sénégal dérouté politiciens yu bëri ah nag man am naa doyo bu toll nii su may yekkale nag xanaa dina toog wax ak man xanaa dina wax ak man boole maa ki may yekkale ba ma dee politique ba tey ak li nekk sama ginnaaw cër bi ma am ñi may déglu ma yeew rek dégg benn oto bi ma duggoon ne fii laa leen di jëmee ñu jékki-jékki dama leen wàcc leen arrêt côté bee la ñuy jëmaat non du demee noonu dama koy xaar te ñaan naa ko audience ne ko président man maa ñëw nangu nga nekk suma leader yow makki Sall pas Amadou Ba pas Ismaïla Madior Fall pas keneen yow laa wax kon boo bëggee bëgg maa yekkale ci keneen danga may woo ne la dama lay yekkale ci ke su toogeek man wax ceeg man ne ma kii laa tànn man dinaa ko jàppale d'accord damay xaar moom mi ma woowoon ne ma bëgg naa la kaay jàppale ma mu ne ma jàppale bi nga ma doon jàppale jàppaleel ma ko Amadou baax su fekkee buggul ma jàppaleel ko ko Amadou Ba na ma bañ a woo wala mu bàyyi ma est que leer na moi je suis bu yor bagage ci ginnaaw je suis membre de l'APR bi nga xamante ne li tax ma doon ko Macky Sall moo ma xëcc dugal ma ci mais waruma nekk kuy bokk ci ma riirandoo yi sama gëdd ëpp na foofu sama fulla aussi ëpp na foofu man ma bàyyi ñëpp des ak sama askan moo ma gënal mais sama askan aussi waruma leen yor ci ñàkk fulla ak ñàkk fayda nit ñi di def foto nii rek ma def foto après ñëwee ñu cof ma déedéet soxlawuma luñ may jox kon ma dem laaj Macky Sall oto ma la ma laaj fal man ñu defal Pikine Nord moo intéressé kii ñëw it day jël engagement te jàppale ma ci defar Pikine Nord mais loolu dañ koy waxtaanee mais comme amagul gars yi bañ ñëwee ne dañuy parrainer coordonnateur le maire de la ville wax ma dama ko ne yéen a ma raw dama leen bëgg a dab dama bëgg président dig bi mu ma dig ne dina toog ak man balaa mu may yekkale ñu waxtaan ci ma jàmbat ko li ma koy jàmbat ci li tax la ma diggoon ci maison de la jeunesse ba ba ñu inauguré ko ci projet Pikine yi war a jóg centre commercial yi tali yi lu tax boobu ba léegi yegg seegul ma dellu ci askan bi nee leen nee na lii moo tax yegg seegul nañ ko ko nangul nañu ànd ak Amadou bu gañee mu yegg waaye mënuma dem ci ñooñ ne leen non gisuma président xaw ma lu tax yeggul waaye nañ muñ te jàppale Amadou Ba ñu demaat ci Amadou Ba mu ne man yaay kan yow man waxuma ak yow dara de Macky Sall nekkatu fi moo waxoon ak yow bu boobaa ma wayati muy genre politicien boobu. ensuite je précise chantage ma chantage ma de waxoon naa ko waa PDS. wax naa ne ku lamb yaa tey daagul fañ la nobee menacé wu ma tamit mais dama nekk leader politique bi nga xamante ne j'ai bourlingué ba may xale ba tey maa ngi politique ku xamul li may jar aussi ma xam li may jar damay du fii sax lañ ko war a waxee maa ngi wax ak président maa ngi dégganteeg moom toog bi lañ defagul ndax ñàkk jotam ba muy nekk Afrique du Sud rek tout récemment déggante nañ balaa muy dem Nairobi déggante nañ balaa muy dem États-Unis avant màggal Touba bi aussi déggante nañ waaye toog bi ak yekkale bi la bëgg lu may sama loxo askan bu dégg parce que ñoñu la yóbboon ci mom ñoñu am yaakar ci and ak man bima and biñu and ak man dem ci président am na lu muy jur. té loolu muy jur jurugu ko mais dina leen wax. wala ma andat ak ñom dem. Amadou Ba tok mom mu tok ñu tok wala ma woti fi ndaje bu rëy ñu tok ñu wax ñu lu tax loolu ñu ci doon xaar pour mu jur ko jur ko ba légui te bopp ba léegi ku ci wax ma ne kilifa gi amul jot. mooy président union africaine moo ngi tukki moo ngi def lii coupe du monde coupe d'Afrique dafa muñ leen muñ leen muñ ba moom bokkatul ah mais balaa mu ñuy yekkat leen nag war nañ def bilan war nañ toog ñu waxtaan ci loolu d'accord pour que ñu mën a man ma man am ma am féexte ñu xam ne man dawuma lijjanti samay kotu bopp rek di la ñoddi ñoom parce que ñoom it am nañ fulla su dee damay dox ci suuf di lijjanti samay kotu bopp ñu may dox may dugal sama poos ba pare di la xëcc jot yi am nañ sañ-sañ taxaw bëgguma loolu dama bëgg fu may dem ñu dem fa donc ni may dalee sama xel ba ma yóbbu leen fa laa bëgg dara seen xel ba ñu topp ma